tey li ñu fi dajale mooy ci benn forum bi nga xam ne moom la ñuy def ak les acteurs communautaires yi nga xam ne ñoo nekk fii ci département bi muy ci wàllum benn forum de redevabilité pour l'éducation des enfants handicapés donc loolu moo ñu fi dajale tey pour waxtaan ak acteur yépp muy directeur d'école yeeg muy collectivité territoriales yi muy les APE muy IF ak tous les acteurs bàjjenu gox ak délégués yi ak imam yi organisation personnes handicapées yi ñoom ñëpp ñu ñëw dajaloo fii pour ñu jéem a waxtaan naka la ñu mën a ñoŋalee jàngum xale yi ci biir école yi au lieu que ñuy dem ci les écoles spécialisées mais ñu fexe ba ñu intégrer école de proximité yi nga xam ne moo nekk ci seeni gox goxaani jege leen donc ñu amoon fi ay écoles yoo xamante ne nag ñu ngi ñoom ñu ngi def déjà ay jéego ci wàllum éducation inclusive donc euh, école yooyu aussi seen i directeur teew nañ fii si ndaje mi tey pour xool euh, naka la ñu mën a àndee ensemble liggéey parce que boo nee éducation dafa yaatu te bu fekkente ne ci wàllum xale yi la aussi il faut nga soxla acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, ñoo nekk ay acteur si wàllum si milieu éducatif bi donc loolu moo ñu fi dajale tey ñu àndoon ci nag ay collectivités yu bari lu mel ni ville de Pikine am na fi représentant ak Pikine Est Pikine ginnaaw raay nord ginnaaw raay sud Thiaroye sur Mer Diamaguène Sicap Mbao ak Tivaouane Diacksao Thiaroye aussi am na fi représentant donc ci euh, loolu tamit aussi lan moo beesaat encore donc ci li ci tamit aussi éducation inclusive boobu ndax euh, jafe-jafe yi la ñi nga xamante ne xale yi ñu koy dund wala parce que dañuy bi ñuy démarrer dañu démarrer woon ci ay diagnostic xool structure sanitaire yi ci euh, wa ci wérgu yaramu femme handicapée yi ñu ànd ci ak suñu benn partenaire bu tudd ay AIBP mu accompagner ñu muy euh, partenaire technique et financière gunge ñu ci diagnostic yooyu bi ñu paree ci diagnostic yi lépp loo xam ne génnee nañ ko ci comme ay recommandation muy formation des acteurs de santé en langue des signe pour que ñu xam naka la ñuy waxee les enfants les jeunes les femmes sourdes bu ñëwee ci biir structure santé bi. donc bi ñu jógee ci loolu aussi dem nañ ba tey ci cadre projet bi ànd ak collectivités territoriales yi ñu liggéey ci et ci budget participatif. Euh, euh, participe budget participatif inclusif sensible au handicap ñu ànd ci ak collectivité territoriales yi boobu ak léegi ñu ngi def ay suivi di dem ci yenn collectivités yi di xool naka la ñuy àndee ci processus boobu parce que budget participatif inclusif sensible au handicap processus la doo xëy rek def ko ñu ngi ànd ak yenn collectivités yi ci loolu di ci liggéey ak partenaire bi di IBP bi ñu jógee ci loolu assi tey ñu nekk ci dernier virage bi mooy éducation inclusive tant que yaay mais en tant que personne en mobilité réduite euh, ñun li nga xamante ne moo ñu dal ba suñu jàng mënta egg fi ñu bëggoon mu egg wala gàllankoor obstacle yi nga xam ne amoon nañ ko ñun ci suñuy jamono am bugguñu ko xale bi am ko tey à l'instant parce que booy xool Pikine bi ñu defee enquête xale yi gis nañ ne xale yu bëri dañu abandonné école ci loo xamante ne lu ñàkk fayda mooy tax ñu abandonné école maanaam wàllum toilette yi maanaam accessibilité bi wàllum euh, li nga xamante ne wu ñu aussi enseignants yi ci éducation inclusive yooyu yu bari dafa nekk ay gàllankoor yoo xamante ne xale handicapé ñu ngi koy dund mais jàpp nañ ne ak projet bii bis bu ñu génnee ci atelier bii liñ fiy tënk comme ay recommandations dinañ ci ànd ak partenaire bi mu gunge ñu ak tous les acteurs yi nga xam ne ñoom la concerné milieu éducation ñoom la concerné ñu jéem a xool yan matuwaay la ñuy teg xale yi gën a mën a fréquenter école de proximité yi gën a mën a fréquenter école yi nga xamante mooy école publique yi mais aussi am njàng mu mucc ayib enseignants yi aussi mën a accueillir xale yi à bras ouvert xam ñan ñooy xale yooyu parce xale tamit mooy mujjum réew ëllëg munoo nekk handicapé rek ñu exclure la ne waroo jàng école waroo def dara xale bi dafa am droit comme xale yëpp te droit à l'éducation c'est pour tous les enfants